dal leen ak jàmm assemblée nationale moom la ñëpp di waxtaane Walf Quotidien ne assemblée googee njiitu réew Macky Sall bëgg naa teg tànkam ci assemblée nationale teg ko ci ku jég politique bi daanaka ma nga fépp waaye nag dina jafe lool ci moom yéena kabit Walf Quotidien xëy du ñu jàngatal assemblée eh, lañ ca jotoona waxtaane démb am ñu ko doon lam-lameek di ko rumbandaat article 87 eh, bu constitution bi eh, jëm ci soppi ci lenn li loolee nag jur na fa daanaka ñaxtu ay député opposition fippu nañu ñiy féete ci mouvance présidentielle xam le ne googule ak article euh, bu L 87 bu constitution bi mujjee nañ ko retiré opposition bi ne déet euh, xel dalagu ci ndax weddi gis bokku ca bëgg nañoo gis euh, këyit nga koy mandargal mu ngi ci yéen a wal di Walf Quotidien yéen a kaabi di enquête ne coow la daanaka jeex na jëmoon ci coppite ñu waroon a indil ci article 87 bu constitution bi bokk na ci tamit lañ ca jot dëxëñ ak nañu mujje deltu ginnaaw docteur Malick Diop ne te moo ne de waxtaane woon nañ kook njiitu réew mi euh, Macky Sall ba ñu jëloon dogal euh, teg ko ci suuf euh, Abba Mbaye bu taxaw Sénégal ne xeel xalaatul ñu wote ko ci assemblée nationale ndax du ñu jublu mukk ca lay sànq assemblée nationale Thierno Alassane Sall sàkku ci assemblée mu gën a dëggal boppam baña a caaxaane boppam xam le ne assemblée bi lee kenn waru ko nasaxal di dooleel keneen yéen a kaabidi yor yor gi xëy duñu dégtal googule modification coppite naroon nat euh, bu constitution bi yéene cabinet fi pugee bari daanaka pression be euh, tegu ci njiitu réew Macky Sall ba mu deltu ginnaaw yéene cabinet ñu fàttali ne te moo de ñetti fan ci heure sulet euh, gannaaw pression bu bari ci troisième mandat taxoon mu ne deltu na ginnaaw du doon candidat ci élection présidentielle yu 2024 bi la yoon nag pression bi tegu ci article 87 bu constitution bi tax njiitu réew Macky Sall deltuwaat ginnaaw tegaat ko ci suuf yéene cabinet di le point actu ne majorité présidentielle Mbacké njiitu réew Macky Sall ndax amati na comme déet ndax euh, ñàkk ko yéen cabinet euh, bu ñu xoolee li xew démb ci assemblée national ay député yu majorité bi ñoo njëkk a taxaw ne euh, du fi amee article 87 bu constitution bi kenn waru ko yeesalaat coppite waru caa am yéen cabinet li am ba des mooy la ca njiitu réew Macky Sall daanaka buggoon mu juta sotti la ca Abdoulaye Wade jéemoon ci yooyu le googule article 87 mu jéewoon ci deltu ginnaaw bi la yoon njiitu réew Macky Sall faf deltu gi ginnaaw le point actu di ñu jàngatal njiitu réew mi yéen a bi di la mandaane révision constitutionnelle jëmoon ci mun tas assemblée nationale say bu soobee njiitu réew Macky Sall yéen a kii bi ne mujjee na ca ba set modification googee article 87 bu constitution bi waa yeewi askan wi ay député ne jóg nañu taxaw ngir jàmmarloog njiitu réew mi Macky Sall yéen a di 24 heures ne mujj ta sotti assemblée nationale député yi féete ci kujje politique bi jóg nañu taxaw Guy Marius Sagna ne du duñu seetaan mukk di dooleel njiitu réew Macky Sall bëgg na saxal assemblée nationale bokk na ci Thierno Alassane Sall jàpp ne eh, lu aju ci li mun a jëmale réewum Sénégal mun nañ caa taxaw wote ko ci assemblée nationale waaye nag luy nasaxal assemblée nationale rawatina pencum ndaw réew mi eh, duñ ca eh, seetaan benn yoon wala boog duñ ci yox yox yi yéen ki abi di Sud Quotidien ne assemblée goge bañ na ne du signé kayitu tàggeem ndax munoon na fee jaaree na sax ba faw député ñoom lank nañ ne du ñu jëfee càkkute fu nguur gi Boubacar Abbas Mbaye bu taxaw Sénégal xam le ne waa taxaw Sénégal bu Khalifa Sall xel xalaatul ñu jëfee maanaam wote googule projet de loi Abbas Fall euh, bu yeewi askan wi jàpp ne mbir yi daanaka pression moo tax njiitu réew Macky Sall ak ay ñooñam deltu ginnaaw docteur Malick Diop ne bu Benno Bokk Yaakaar ne ministre de la justice jotoon na ci daanaka addu te dina ko retirer jëm ci modification coppite yooyu ñu indi ci article 87 euh, bu constitution bi yéen a kaab yi quotidien moo ñu ko yëggee yéeni kabi di turbine euh, di ñu dégtal ne alxamis gi ñu jëm nag daañu xam euh, kii di Khalifa Sall ak Karim Wade fa ñu mujjee ci seen euh, dogalwaat atte ga ñu jël ci assemblée nationale ndax daañu bokk ci élection présidentielle yu 2024 am déet yéeni kabi di turbine ne régime bu njiitu réew mi Macky Sall fañ ko doon seen toog fañ ko tegoon tàmbali na rës bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ne mooy ministre conseil Aziz Diop fippu na ci njiitu mi Macky Sall yéeni kabi Euh, turbine moo ñu ko yeggee moom la fekki Aziz euh, Diop euh, ci biir yéene kabi di le peuple quotidien ministre conseil la ci wetu njiitu réew mi Macky Sall ma ngay dankafu njiitu réew Macky Sall ne bàyyil pexe yi ngay teg ci jamono ci te loo ci dugg tey ñaar moo la ci dugal di Farba Ngom ak Mariam Faye Sall Abdoul Aziz Diop yemu ca fexe na ba dankafu waat njiitu réew mi Macky Sall na moytu Farba Ngom mi mu ne àndut ak xam ñaari jafe-jafe njiitu réew Macky Sall nguuram dund ci weeru mars 2021 dund ko ci weeru juin 2023 du kenn ku dul Farba Ngom euh, moo ko teg njiitu réew mi euh, Macky Sall bu ñu sukkandikoo ci docteur Abdoul Abdoul Aziz euh, Diop yéen ki abidi direct news xëy waxtaane candidature coalition Benno Bokk Yaakaar ak tànneef ba ca njiitu réew Macky Sall war a amal Malick Sarr jàpp ne tànneef gum ci def mun nañu ànd ak moom bokk na ci ma ngay dànkaafu Ousmane bu njiital Pastef bu jàppee ne mun naa tax élection du am ci mim réew ndax na boppam yéen ki abidi critique ne candidature Benno Bokk Yaakaar Macky Sall moo xam moom rek moo xam kamuy tànn ca ña jot a yëgloo gum euh, mu ngi ci yéene kaa bi l'observateur ne li am ba mooy candidature coalition Benno daanaka déggoo dina ca jafe lool ndax candidat ya ca yëgloo gum ñoo bari euh, ku mel ni Abdoulaye Diouf Sarr yëglu na ku mel ni tamit euh, premier ministre Amadou Ba ba ci Abdoulaye Daouda Diallo ak ñeneen ak ñeneen yéene kaa bi am na keneen koo xamante ne Moustapha jotagu ko déglu di Abdoul Aziz Diop mu fippu ñaawlu doxalin gi yéene di réew mi quotidien ne li am ba des mooy ku yaboo séntu euh, tegum loxo Ousmane Sonko dañ ko teg loxo euh, ci lu yàggatul yóbbu ko kaso euh, gannaaw bi ko yoon daane ñaari atu kaso ci dossier Sweet Beauté digganteem ak Adji Sarr yéen a bi di critique ne coowal Ousmane Sonko mbir ya gi fagul bokk na ci kenn ci ñu doon saku ngir Ousmane Sonko doon candidat ci élection présidentielle yu 2024 yéen a bi ne mbirum Alioune Sané ñu war ko yóbbu ca chambre d'accusation bokk na ci société civile jóg na taxaw Aliou Sané mi ñu ne eh, kenn waru ko attewaat ba di ko yóbbu eh, yéen kii bi di Walf Quotidien xëy yóbbu nu ca Jolof fa la ne woon docteur Alioune Sarr candidat la ci élection présidentielle yu 2024 la ko yitteel mooy yeesalaat vallée fossile fexe ba ndox mi jógee eh, ci fleuve Sénégal ñu mun ko jëfandikoo eh, jëmale ko ci mbéy meek eh, càmm gi yéen kii bi di las ne lu jëm ci ARTP jëm jëm ci tamit 5G bi nguurug Sénégal dina ci encaisser lu toll ci fanweeri milliards ak ñeent ak lu toftal yéen kii bi di Stades lañ koy jeexale mu ngi ñuy dégtal mercato bi tàmbale